c'est-à-dire que Modou dafa doon champion bi nga xam boo ko tiimee da ngay naan kii presque matul matul mbër da nga koy jéem a xet moo tax signature yi bëri na xale yi mbër yi koy yàpp mais si biir géew bi nee nañu Modou Lo ku ko yàpp si signature doo ko yàpp si biir géew bi parce que boo dajee ak ci biir géew bi da ngay naan noo kii du nit kii jinne la parce que lu mu fay wanee la Modou dafa ñemee ay entrainement champion la bi nga xamante ni doole bi nekk ci moom euh, mënoo ko gis si si yaram bi doole intérieur la moo tax képp ku mu jëflanteel nga doon xale di kii di mag boo liggéeyul moo loo daree toroxal donc par rapport à sa forme ah yu muy affiché yaakaar naa ni à 37 ans avec une bonne hygiène de vie amuloo dara lu lay galancor surtout que Modou ñu xam na ni c'est un professionnel parce que ñu ngi naan ay xale. amuñu dara lu ñu ko ëpple parce que ni muy ñu fi ñuy entraîner foofu lay entraîner fu ñu gëmee seen bopp fa lay gëmee wala gën a gëmee boppam ku ko respecté wul nga entraîner comme ni muy reyee boppam ci entrainement du gaaw a perte couronne bi